ci béss bu màgg bii tey nga xam ne moom mooy béssu journée culturelle Cheikh Ibrahim Niass journée culturelle nag buñ ko waxee moom mooy anniversaire juddu Maulana Cheikh Ibrahim Niass ci weeri tubaab mu war nekk le 8 novembre waaye ak gàmmu gi taxoon ñu indi ko ba ci bésu tey bii di le 13 décembre 2020 ñu ngi ndokkeel ñëpp nag. ci ku tedd kooku nga xam ne nii yàlla may na ñi ñi bokk ak moom dëkk yàlla may na ñi ñi bokk ak moom région yàlla may na ñi ñi bokk ak moom réew yàlla may na ñi bokk ak moom tamit jamono ba pare gëm ko ndax benn mag daf ma mos wax ne ma Seydi Ali daf daan wax ne ñun dañoo war a sant yàlla bi ñu yàlla booleek bàyyi jamono ñi ànd ak moom ba pare gëm ko ah, yàlla mënoon nañoo indi gannaaw bàyyi yàlla mënoon nañu indi ñu bokk ak bàyyi jamono te duñ ko gëm waaye yàlla bu ñu tegalee loolu yëpp teggilee loolu yëpp kon war nañ di ko sant ñi ngi sant bu baax nag di sant mbokki taalibe yi ci seen taxawaay ak ni nga xam ne noon ngeen doon fugloo bésu tey bii nii waaye nag jaam ak bëgg-bëggam yàlla ak dogalam ñun ay taalibe lañ te suñ sëriñ mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass daf ñu daan wax ne lépp lu état di digle bu leen ci kenn jiitu gannaaw ministre de l'intérieur moom moo amee sécurité réew mi joxe na arrêté ne programme yi yëpp nuñ daan def ci place publique yooyu yëpp interdit na ko ñun bañ ci waxee ak suñ sëriñ moom tamit mu neen nañ nangu li nga xam ne nii moom la ministre de l'intérieur wax moo tax ci loolu ñi nangu ko ci sunu waxi sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim Niass nangoo ko ci sunu waxi xalifa bi nga xam ne nii dëgg-dëgg ñu ngi koy ñaane yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér yaram muy cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass heure bu nekk def ñuy wax nañu na ngeen am discipline discipline nag bu ci jiitu bokk na ci tey bu sa kilifa yi waxee ne lii lañ bëgg nga ne leen semaine naa waxtaan naa ñun kat dégg nañ ko te danañ ko def ma sàmbaa ngay def ma dembaa ngay def ñun li nga xam ne nii njiiti réew mi loolu la wax loolu lañ wax ndax suñ sëriñ loolu la ñuy jàngal te réew mii tey yàlla président Macky Sall la fi teg ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dimbale may ko ndam yàlla na ko yàlla jubaleeg peuple yàlla na ko yàlla jox alal ju mën a def ci réew mi yàlla na ko yàlla booleeg ñi nga xam ne dañ koy dimbale ci mission bi ba pare nag ñi ngi wax tamit beneen message boo xamante ni di wax ne président de la république itteem yëpp moom mooy nekk ci ndaw ñi réew mii ay ndaw a ko jiite taxawal na fi nag ay direction yu bëri pour ci emploi des jeunes ñooñu direction yooyu nañ xam ne sénégalais yi chaise yi ñu amoon yëpp dañ ko dajale jox ko président président chaise yi mu ngi koy séddoog ñoom buñ ne ndaw ñi nañ toog buñ toogee ci yan chaise la ñuy toog kon nañ leen jox chaise yi ñu toog ci waxuma ne nag ndaw ñi nañ dem heure bu nekk fii ci dakaar bu tayee ñu ne ndox mi yàlla jaa ngi taw ndox mi mbënn mi mbënn mi bu subaa ñu ne Dakar amul ndox dafa ñàkk ndox robinet yi amuñ ndox ñi ngi uti ndox bu gannaaw subaa ñu ne la xale yaa ngi dee ci ndox mi kon nag nañ leen lijjanti problème mu ndox mi te yàlla dafa wax ne wa naa minal maa'i kulli shay'in hayyin ndox lépp luy dund rek yàlla daf koo def ci ndox kon nag nañ dimbale su ndaw yi yéen directeur yi nga xam ne ak yéen kilifa yi nga xam ne yéen la président bi jox chaise yi jox leen ko xale yi ñu toog ci su ngeen ko joxee xale yi ñu toog ci xale yi dinañ mën liggéey xale yi Sénégal lañ bëgg amuñ feneen fu dul Sénégal xale yi tim ñi ngi leen di wax ne leen trois cent mille ku ko am départ la kenn warta jël trois cent mille du ko jógee ci gaal gi départ la waaw lu lu jamono métti métti métti am na ñoo xam ne nii lu jamono yàqu-yàqu am na ñoo xam ne waruñ cee bokk suñ sëriñ loolu la ñuy waxoon yéen ñi may waxal xam ngeen seen bopp kon nag nañ jàpp ne ñun lay sëriñ bi di wax muy Maulana Cheikh Ibrahim Niass nañ leen góor góorlu di dimbalewante ànd di liggéey keroog rek maa ngi dégg benn rek benn direction rek di wax ne ñoom ñi ngi am lu tolloog cent milliards yoo xam ne war nañ koo def ci emploi des jeunes mu nekk DER mais cent milliards boo ko jëlee bëgg koo jox ay jeunes pour ñu liggéey xanaa jeune bu nekk boo ko joxee un million sax cent mille jeunes la cent mille jeunes kon loolu boo leen dimbalee foog naa ne dootuñ demati fenn li leen président bi jox nañ koy jox ndaw ñi danaa wax ci beneen message tamit maa ngi dégg ke rek wax ne ci rajo bi ne ah, am na programme boo xam ne état daf ko bëgg a taxawal tuddee ko toolu sëriñ bi ànd ci ak directeur euh, de la jeunesse ñi ngi wax ne toolu sëriñ bi sëriñ bi yàgg na koo bàyyi mu ngi ciy dimbale ndaw ñi su fekkee dañuy dimbale sëriñ bi nañ ko dimbale ci jumtukaay yu war nañ ko dimbale ci tracteur nañ ko dimbale ci matériel agricole nañ ko dimbale ci engrais nañ ko dimbale ci jiw nam koy doxalee nag suñ ne ñoom bu ñu leen ci dugalee ndax monsieur le président xam na nitam yi bu baax ñu bari ñu ngi leen di dugal ci yenn yi te gisuñ ci yenn résultat sëriñ bi nag tey heure bu nek mi ngi tok di genné xaalisam man de fama dëkk muy Medina bay bima dëkk xam ko suñ serigne ci tëjuwuñ laqatuñ li gëna yéme moy ne khalifa bi muy cheikh mohammedul mah cheikh Ibrahim Niass fay génn taxaw ci buntu kër yi ne kan ngay sét man ma ngi ni soko ko bu amé jox la boko ko xam-xam bu xamé wax la bu amoon ne la bu yàlla ñëwé lu ñëw mu jox la boko joxé légui léegi million mu ne joxal ki kon nañ leen dimbale kilifa yi ci lolu nit ñoo xamné dañ nan duñ wax heure bu nekk kilifa yaangi wax. ñi ngi wax waaye heure bu ñu kenn waxee wax boo xam ne nii dafay indi jeexi jaaxa rek danañ ko tasaare waaye chaque jour ñi ngi wax kon nag yéen ñi nga xam ne yéen la président bi jox euh, chaise yi ngeen toog ci jox leen ko xale yi ngir yàlla bu ngeen ko jël ranger ko seen kër ñi ngi wax projet projet dañoo bind projet ba bugg a dee léegi-léegi nga gis projet boo xam ne yow yaa ko dugal ñi xëy ñi jox ko beneen ndaw mu koy kii te ndaw ñaa ngi bëgg a liggéey loolu benn message bi ma doon jàllale ci ñi nga xam ne président jox na leen chaise yi beneen message bi tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci communes yi nekk ci état civil yi nañ xam ne nit ñi ci ñoom lañ bokk dañuy jaxase kayiti xale yi xale boo xam ne dafa war a dem jàngi am am am am bac war a dem nga ñëw ñu ne la kayitam bii ma sàmbaa ko amee wala ma dembaa ko amee wala nga ñëw ñu am sa kayitu juddu bu normal nga ñëw di defar carte d'identité ñoom ñu juum ci yow ñi bàyyi la ngay yéeg ak wàcc yéeg ak a wàcc te ñi nga xam ne ñoom ñoo ci juum kenn du leen sanctionné kon nag état nay jël matuwaay ci loolu ñi ngi ñi ngi ñi ngi sonal ay xale yoo xam ne di leen di tardeel fii ci réew mi te lu ndaw la ñuy def rek yàqal leen seen kayit yi ñu toog dootuñ amati kayit dootuñ mën a jàng te loolu buñ ko defee ba pare xaalis bu bëri lañ leen di fayeeku ñu war di yéeg ak a wàcc dem ñi annulé fii dem ñi eh, mise à jour la bii yàqal la bee loolu yëpp nañ ko moytu nañ xam ne place yi nekk ñun sénégalais yi ñoo leen fa teg sénégalais yi ñoo leen di fay na état di jël matuwaay ci ñi nga xam ne nii dañuy yàq di def am na ay étudiants yoo xam ne yàqal nañ leen seen liggéey te loolu warut lu tax nag ñuy jàllale message bi tey bés bi bess journée culturelle la ansaaru din bu Dakar moo koy organisé te suñ sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim Niass daf ñoo waxoon ne seen itte nekk ne da ngeen dimbalewaat ak julli ji fi jamil anhaa'il alam ci mboolem adduna bi yëpp dee leen dimbalewante ak ñoom kon nag message bu nga xam ne nii war nañ koo jàlle ci bésu tey bi nañ ko wax ne président ne dimbale ndaw ñi mu ngi dimbale waaye nitam yim jox chaise bu buñ ko mënta gérer nañ ko jox ñeneen ñi liggéey ko beneen yoon ñi ngi wax ne xale yi nañ leen génnee ci ci tali bi ñuy yalwaan xale yi ñiy jaa taalibe yi dëgg-dëgg ñi ngi ci daara ja di jàng suñ leen buggee génnee ci tali bi xale yi yalwaan nañ ñëw wax ak ñi nga xam ne ñoo jàng alxuraan waaye doo jël ay nit toog leen ñu toog seen bureau def ay séminaire ñëw ne la président génne nañ xale xale yaa ngi fees dell ci bett ñu lay wax ak li am du benn kon nag nañ bàyyi xel ci loolu ñun nag yaay suñ kilifa message bi dañ koy wax rek waaw yaay suñ kilifa lépp loo am sa ndam sa suñu ndam la moo waral kereeg bi nga waxee ne bu kenn def ñun dañoo arrêté suñ lépp ñun yow la ñuy déglu suñ sëriñ def ñoo jàngaloon ne nga jubóog sa sous-préfet moo gën nga jubóog sa préfet nga jubóog sa préfet moo gën nga jubóog sa gouverneur nga jubóog sa gouverneur moo gën nga jubóog sa ministre de l'intérieur nga jubóog sa ministre de l'intérieur moo gën nga jubóog sa président de la république ñun nag yéen ñëpp lañ bokkandoor jubóog ndax xam nañ fi nga teg Cheikh Ibrahim Niass ñi ngi lay ñaanal yàlla bu baax yal na la yàlla may ndam te mbas bii nga xam ne moo tax te ba bésu tey bii nii tooguñ def ko ñun ñëpp ensemble yal na ko yàlla jeexal ci àdduna bi yëpp bés bi nag dafa am ñoo xam ne nii ñoom lañ ko darajaale woon comme niñ koy defee chaque année dañuy tànn kenn ci njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim Niass yi Euh, tànn ko jiital ko ci pare yi euh, pour ñu barkeelu ci moom ndax ñoom lépp luñ dugg rek barke la ñu tànnoon ren sunu yaay euh, sunu sëriñ mu nekk Seyda Maam Roqi bintu Cheikh Ibrahim Niass tànnoon tamit directeur général bu Senelec di Pape dem ba tey mi nga xamante ni wax dëgg yàllaam itteem ci Ansaarudine ak itteem ci pay bi foo ko natt rek romb na foofu ak itteem ci réew mi dëgg-dëgg kooku ñun ñëpp dañ koo ameel ngërmande ndax boo génnee ci Dakar wala nga dem ci région yi wala nga dem ci àll bi dëkk yu bëri taal na làmp yi te loolu lañ ko doon xaar ci moom te suñ sëriñ nag laana Cheikh Ibrahima Niass dafay wax ne ki def li ko war rek la sant war li ko war def moo tax ñi koy sant gërëm moo moo waraloon bés bii tey ñu boole ko ci ñiñ ko darajalee pour njukkal ko ci wan ko ne ko ñun de kontaan nañ ci liggéey bi. di ci teg tamit euh, suñ bàyyi al imam Cheikh Mouhamed Jimlo mi nga xam ne muqaddam Cheikh Ibrahima Niass la di ñu jàppale nag di ñu ñaanal suba ngoon gu dégg bëccëg itteem yëpp yëpp yëpp yëpp moom mooy ansaaru diin moom mooy bàyyi moom mooy jullit ñi moom mooy lu leen benn le kon ku mel noonu boo ko amee ci mbooloo moo xam ne yàlla tànn na la nga nekk ci kanam dëgg-dëgg war nga di ko fàttaliku ñu boole woon ci tamit euh, sunu yaay sunu soppe sunu lépp mu nekk Seyda Ndey Maguette euh, bint euh, Seyda Ndey Maguette muqaddam mi nga xam ne ni fii la nekk ci dakaar di liggéey liggéey bu rafet ki nga xam ne nag moom laay mujjee lu tax ma mujjee ko moom mooy président Mohamed Niang président Mohamed Niang dafa jiite woon ansaaru din liggéeyoon fi liggéey boo xam ne nii macha allah ku ñëw rek danga nga kontaan bañ nañ ko ba foo ko gisaan rek sa xel mi ci ansaaru din lay nekk ñun ndaw ñi de wax dëgg yàlla am gis nañ liggéey bi mu doon liggéey ndax ku mel ni alxalifa cheikh alxaaji abdallahi kum tànn jiital la nga ànd ak moom di liggéey ba mu fi cheikh ahmed daam ñëw feddali loolu dëgg-dëgg jàmbaar nga kon looloo taxoon ñi boole ko ci suñ papa Cheikh Mouhamad Niang ndax ñun noonu lañ koy organiser dañuy tànn kenn ci ci baay gi tànn kenn ci ki liggéeyal Ansaarudin tànn ci kenn koo xam ne nii mu ngi liggéey ci état ba pare di dimbale wante ak Ansaarudin tànn ñaar ci muqaddam boole leen lépp nag lu tax ñu def ko pour ñëpp gis ci seen bopp la loolu rek moo war waraloon kon ñii lañ ko darajaale woon am na nag bés bi ñu bëri dugal nañ ci seen alal wax dëgg yàlla su ma su ma su ma limee damay juum am na ci koo xam ne nii presque lépp luñ ci waroon a def moom moo ko def tant beeg lu ci aju yëpp ba pare ne buggu kenn tudd turam kon loolu lu tax ma koy wax fii nii pour ku ko dégg rek ngeen ñaanal leen yàlla rawatina kooku nga xam ne moo ko defoon daaw def ko ren te mu ne fii ba mu ngi koy man mu ngi koy def kon nag dañ koy ñaanal yàlla mu koy mën toujours yàlla di guddal fanam di yokk mën man yàlla di ñu yokk ñun tamit ba mën di def loolu noonu ndax wax dëgg yàlla képp ku lay dimbale ci mission rek nit ku baax nga. ñi ngi ndokkeel ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp suñ tuddee danañ juum waaye rawatina cheikh Mouhamadul Amin cheikh Ibrahim Niass bi nga xam ne moo fi nekk représentant xalifa bi fii ci Dakar ànd ak ñun diñu dimbale ci liggéey bi yëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam may ku wér di ko ñaanal al xalifa Mawlana cheikh Mouhamadul Mahi cheikh Ibrahim Niass di ko ñaanal al imam al akbar di ko ñaanal euh, al imam cheikh Mouhamadul Mahi porte parole bi nga xam ne. conférence bii moo ko war a def ci kanam léegi da ngeen ko gis suñu yaay Seyda Fatimatu Zahra yal na yàlla yokku leeram di ko ñaanal yàlla bu baax di ñaanal yàlla Seyda Roqiya bi nga xamante ni tey moom mooy mag ci kër gi di ñaanal yàlla suma sëriñ suma yaay suma soppe suma xarit Cheikh Mariam bintu Cheikh l'Islam xaadimatul Quran di gërëm nag mboolem taalibe Baye Niass yëpp di leen di ñaanal yàlla di leen di ndokkeelaat ci yi nga xam ne nii def nañ ko daaw fekkee déwén yàlla may ñi ñi defaat ko ren ci nii bu déwénee yàlla nañ ko yàlla may ñi defaat ko ak janoo ñun ñëpp kon ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm du ma du ma du ma tëj mukk nag te gërëmu ma sama membre bureau bi nga xam ne nii maa ngi liggéey ak ñoom suba ngoon gu dégg bëccëg maa ngi leen di sonal ñii ñoo ma mag ñii maa leen mag waaye ñoom ñëpp dañoo nekk sama ron di ma jàppale kon ñooñ awma seen gërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen gërëm du ma su ma limee rek damay juum di gërëm mbolo mi yëpp ñi amoon yéene ñëw ak ñi ci def seen alal ak ñi am yéene def ci seen alal yëpp nañ xam ne yegg si na du ma du ma tëj mukk nag te fàttali ma leen ziare bu mag bi nga xam ne nii mooy ziyaare Mawlana Cheikh Ibrahim vendredi prochain la incha allahu le 18 te imam nag nee na ziyaare bii ziyaare sant yàlla la mu ne ma bu ren bii ziare sant yàlla la kon nag sant yàlla bi nañ ci ñëw ndax yàlla moo ñu wax ne la in shakartum la azidannakum su ngeen sante ma doole leen kon ñi ngi sant yàlla bu baax alhamdulillah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aji abdul ilahi bahjati to la rawani